fi ma ndékkee ba jóg di raxas samay kaas la ñëw ci sama la egsi ma daldi daw rekk songu ko ne ay sama papa ñëw na sama papa lañ ko tuddee ma daal di ne ay waay papa ñëw na papa kañ nga ñëw mu ne ma biig ma ne ko bii mu ne ah, ma ne ko ah yow de kon sonn nga mu taxaw taxaw ma ma ne ko ah Assane egsi lan la mu daal di ñëw mu toog ma toog ma ne ko lan la Assane mu ne ma tànta damaa ñëwoon ci yow ma ne ah mu ne ma daal dafa am ku ma daan sama xaalis ma di ko ko jox léegi nag ma ñibbisee dem naa fa démb ba ma fa demee démb di ko laaj sama xaalis mu ne ma doo jot dara ak yaayam léegi nag dama bëgg ñu dem ma laaj ko sama xaalis ma ne ko yow kan la mu ne ma mareem man ko yow yaa ngi mareem bàyyante wu leen yéen amoon ngeen dégaa dégaa boobu lijjanti nañu ko ba mu fin ba ku nekk na demal sa yoon léegi ndekete yéen bàyyante wu leen man de boobu kaaduutuma ci dugg te duma ci dugg tey duma ci dugg ëllëg ji moom moo ma ko wax moom te yàlla rek laa ragal dem na pëlis ba mu demee pëlis ndax yaayu xale bi njëkk a dem pëlis ak xale bi ba ñu demee pëlis def pelante bi indil yaayam ba ba ñu ba ñu egsee yaayam ni leen man Assane gisaguma ko ñu ne ko Assane ñibbisi na mi ngi Sénégal ñu ne ko mun leen man tegaguma ko bët ñu ne ko nag léegi teg ko fi bu ñëwee nga jox ko ko léegi nag yaayam gisu ko. ba mu def lii mu def lu may bëgg a dem ñu ne ma bu ngeen demee ay mbokkam mbaa duñ leen fa dóor ak loolu wóoru seen xol metti ñu dóor leen man de moo ma tee dem loolu doo nga ma teeree añ ba pare tëdd sama néeg di di di noppalu yaayam yónni ñaar doom doomam ak sëtam ni kaay wuy sama yaay kaay wuyu man duma ko eh, du ma ko tànqamlu ma daal di ne ah soxna Ndiaye de bu ma nee kaay wuyu waaye du ma tànqamlu naa jóg. li naaj wi tàng tàng ma daw si ndikk ni ko soxna lan laa ti dangaa feebar lan la mu ne ma a ah, maam Assane de dégg naa dem na kër Mareem ba jam na ko ba dégg naa mi ngi ci diggante dund ak dee man ka Assane kañ la kañ la def loolu mu ne ma ah, dégg man de ak gisuma Assane lii laa ci am ma ne ko man de loolu moom xawma ma ci pexe daldi di ni yaayam acca sangul sol yére e, e, e, ñu daal di dem sama kër papa ñooña daal di sangu ñu daal di taxaw nii ni ñu taxawee nii pour génn jël taxi bi ñu ootewaat ni xale bi dee na. Assane wéerut wéerut ba muy am juróom-ñaari at laa ne yaayam Assane wéerut waaye yaayam lu ne daj na ko ci xale bii lu ne daj na ko ci xale bii waaye xale bi mënu toog tax wala mu taxaw. moom kenn xamul lan la moom mu ngi noonu rek. Assane baraxloo la fi. tiis bi dal ci seen baraxloo de la fi jóge woon. ba léegi tegaatuma ko bët ah xaw mënuma leen ban bis la fi wàcc nag mënuma koo xam mënuma ko xam ko ndax boobu ba tey gisuma ko mu ne ma ñëw naa wala mu wàcc ci kër gi man de fanweeri at laa jàpp xale bi ñëw na fi ba tàyyi dàq naa ko fi it bu ñëwee sol kap ab kaba jiinam ma ne ko génnal jigéen du fekki góor génnal ci biti mujj gi bu ñëwee du ma nuyu nee na da ko doon day eh, xaritam de la ma wax waaye xam nga ni ba demee bëggante la rek mhm. xaw ma ñaata at la waaye ah, daaw ba ëpp na daaw ba ren doon na fi ñëw mujj na ñëwatu fi nag temps yi yëpp ñëwatu fi ba Assane tukkee ba tey daana fi ñëw bu ma ubbee néeg bi fekk ko ma ne ko génn leen ci biti génn leen ci biti jigéen du fekki góor Assane ma yaay sama xarit la dañoo toog rek defuñu dara dañoo toog rek xale bu jigéen bi daal man booba laa ko gëj a gis ba mu ñëwee ma ne ko xàmmeewuma la sax ba mu àndee ñooñu indi pelant bi barki démb ma ne ko man de xàmmeewuma la ndax jiin bi nga daan sol ak kab bi mu ni ma man la de meer man la ma ne ko ah yaay Marème man de xàmmeewuma la sax kab ba nga daan solo tax xàmmeewuma la waaw diggante bi démb rek démb rek affaire bi am. ah nee na Assane da ko doon mënoote a wax. menacé man dama koo gis Assane gisaatuma ko fi. Assane gisaatoo Assane gisa mënuma leen Assane dugg na ci kër gi dugg fi. Assane daal mënuma ne leen ba ñëwee léegi wax na ma ci Marème dara. ak wéra di daal la nekkee woon ci kër gi wérul nee naa fi Marème bàyyil Assane Assane wérul yëfi dof rek lay def bàyyil Assane wérul mu ne ma mère kay man Assane moom wérul moom lii lañ mujj a wax ma ak Marème fii barki démb ñooñu ñu ngi toog alkaati yaa ngi taxaw ma ne ko Assane wérul bàyyil Assane